yéen a ngi xaar président ah bi ñëw tey ah mu si wàcc on veut bien est-ce que xalaat ngeen ay yoon yo xam ni peut-être mën ci jaar pour revenir sur la loi d'amnistie ah oui mais parce que la loi c'est c'est juste une décision politique on peut l'abroger si demain l'Assemblée est favorable à ça demain ils peuvent changer par définition une loi est toujours dynamique mën ko changer toutes les mille lois du monde boo xam ne c'est irréversible amul donc il faut que euh, l'État le nouveau régime ba se donne les de mettre en œuvre une loi qui remet en cause cette amnistie-là pour que ñoo mën a xam qui a fait quoi. loolu pour ñun c'est vraiment. mais fu ngeen natt yàqu-yàqu yi ci wàllu démocratie par exemple. démocratie je pense que yàqu na mais je pense que quelque part le 24 le mois de mars le 24 mars a beaucoup sauvé la face heureusement on peut dire que c'est la main de Dieu mm. parce que quelque part les gens les gens c'est désolé du Sénégal dana ama tax kersa am Sénégal dem naa après au Togo ñu ma yow qu'est-ce qui se passe chez vous mm. mais vous devez devenir fou Sénégal vous étiez notre exemple ñëpp ñun dama dem Togo ay mois Sénégal mais Sénégal yéen comment vous faites comment vous êtes arrivé à ça donc heureusement que yàlla dañu loxo la main a été posée sur le Sénégal ba le 24 mu lépp leer le président même pour lui il est passé par la voie normale parce que dafa woo ne moom du xaar ku koy remplacer su ngeen amul damay dem damay dem bu débrouiller xam nga loolu ñaaw na. yàlla def muy def amul musu am Sénégal deux tours pour euh, pour une alternance mu am mu am benn tour mu tekk tekk lépp il a joué le jeu heureusement pour sa gouverne heureusement pour lui pour l'histoire que def na ko mu rafet donc pour ñun daal il a à la limite euh, pour l'histoire il a fait l'effort les les hommes politiques ont fait l'effort de jouer le jeu euh, la fin waaw bant damul nit deewul ci lépp ba léegi ni ñu ci loolu y a pas encore de règlement de compte et Dieu merci encore c'est pas souhaitable en tout daal pour ñun daal la démocratie a été a été retrouvée on peut en déduire que la démocratie donc est toujours debout. elle, elle est debout elle est là pour l'instant on en est mm. doomu aadama aussi certainement am nañ ci benn lecture euh, boo xam ne war nañ ko ci mën a def euh, au plan euh, religieux mais yàqu-yàqu yi fi amoon quand même bëri woon na di faat nit ñi lu ñor tëj lu ñorul tëj di jàpp di di toroxal di bunduxataal loo xam ne aussi du mujj fenn du am benn suite on annonce des enquêtes depuis 2021 mais ba léegi dara amu ci am na ci xëy na loo ci mën dénk diine mais aussi lecture citoyen bi toujours. Euh, waaw tooñ dal ak jaay doole di ko charia di waxee zulm mooy euh, def loo xam ne du sa àq. Mhm. ak xañ nit ak xam. loolu lu sunu borom. je me rappelle sunu waxtaan ba gàddu àq. waaw kay. <laughs> bi bi bi ma bi ma defee sama tem gàddu àq am na ñu bëri ñoo xam ni xam naa dañ doon wax maam yi lii thème la gàddu àq <laughs> mais foog naa bi ñu duggee ci waxtaan bi ñu mujj gis ne nekkete mhm. quelque part est-ce que lépp du loolu waaw maanaam est-ce que problème yi ñu am yëpp sax est-ce que du loolu donc gàddu àq mën na structurer mhm. mën na nekk grille de lecture ci suñu problème yëpp waaw ni ni surtout classe politique bi ni ñu mhm. ñamee àq euh, ak gàddu àq jaarale ko fu la neex. Euh, dafa dafa ñaaw détournement yeeg yëpp daf ciy dugg. lépp ciy dugg. xaalis bu war a dem ci santé bi Covid. ngeen ne du ñuy def ci seen i poche. waaw nit ñi di faatu. voilà ah, ah. loolu yëpp daf ciy dugg gis nga aaya boobu ma wax sànq noonu. naan inna laa ya'murukum an tu'addul amaanaati ilaa ahlihaa mu ne la ngeen yoreel nit ñi yéen gouvernants yi loolu mooy amaana c'est un dépôt sacré. Mm-hmm. kóllëre boobu na ngeen ko matal digganteeg yéen ak les ayants droit ahlihaa mooy les ayants droit kon mooy citoyens yi. Mm-hmm. wa ida xakamtum an taxkumu bil adl bu ngeen di àtte tamit les affaires publiques ngeen teg ko ci justice xoolal noonu la aaya bi wax mhm. kon nag euh, loolu daf ñu manqué trop euh, fi mu nekk nii mhm. ci wàll yëpp comme ni ñu ko waxee problème mu justice bi problème mu transparence mhm. euh, problème mu yamale loolu dafa të lool suñu classe politique yi donc il faut que ñu changer état d'esprit ci wàll boobu mais en même temps aussi population yi warul leen ko bàyyee parce tamit affaire Euh, dialectique la diggante mhm. population yi ak ñi leen jiite parce que population bi tam ñoom seen bopp bu ñu amul benn rigueur amuñu benn exigence ci classe politique bi duñ leen observer euh, am yu ñu leen yi bañal ñoom ñu def leen neex kon tam day yomb trop rek nga ne ñi jiite ñoo yàq réew mi def leen neex déedéet surtout que sax da ngay gis ne ñooñu pour ñu mën a yàq réew mi mhm. il faut ñu jaaree ko ci ay nit yoo ñu nekk ci askan bi fii ay citoyens comme leen di mhm. jàppale ci yu ñuy luubal ak yi ñuy changer ak yi ñuy yàq kon askan bi aussi am nañ ci responsabilité mooy am vigilance ba pare ñoom seen bopp am euh, rigueur ne lii euh, bëgguñ ko fi rawatina nag ñi leen représenté ci côté société civile bi. Mhm. daal ne lii bëgguñ ko fi. Euh, te tamit gis naa am na leen loo xam ni mu ngi gàllankoor réew mi bu baax a baax boo gisee ba tey ci classe politique bi mooy que en fait du ñu respecter les règles du jeu lu dul bu leen arrangé. Mhm. alors que bu ñuy wax république res publica. bien public. bu ñuy wax démocratie di wax les institutions loolu dafa am ay des règles du jeu à respecter ñoom dañ koy respecter tant que règles du jeu yooyu bouleversé wul eh, ñoom seen domination bu leen naree yàqal ñu changer ko soit ñu changer loi bi wala ñu def leen pour wane nii règle du jeu bi arrangé tuma donc loolu par exemple population bi ñoo war a taxaw en ce moment daal ni lii euh, on ne l'accepte pas kon effectivement am na yu bëri yu fi xewoon mhm. mais euh, heureusement euh, yaakaar naa ni élection yi mhm. euh, jàll na mhm. kon fi mu nekk nii li ñu bëgg rek mooy les nouvelles autorités ñoom xam nañ li fi jaar yépp te ils étaient impliqués mhm. euh, dedans même si man amoon naa ay réserve ci yenn seen i position mais loolu c'est un autre dossier parce que loolu jàll na amoon naa ay réserve ci yenn ki seen position que je trouvais injustifiée ak ay position yoo xam ne excessive wala des fois ay désinformation et cetera mais à la kulli xaal en face aussi y avait des gens yoo xam ni euh, tanewuñ kenn. Mm-hmm. loolu loolu c' regrettable quoi. waaw bu trois ans yi passé. Mm-hmm. c' un brouillon boo xam ni. waaw boobu boobu alors je me mais Sénégal qu' ce qui se passe. Mm-hmm. léegi nag on est on est ça ne sert à encore yu mel noonu. fu nekk nii on euh, ci phase bu bees. les institutions sont la démocratie est là la république est là. on a des nouvelles autorités man bokkoon naa ci ñi gën a ci fan yi mujj yi pour refuser.

kon heureusement léegi ñu ngi ci phase boobu kon nag léegi euh, la nouvelle équipe les nouvelles autorités mm-hmm. nañu assumer seen responsabilité euh, nañu xam ne askan bi euh, dañoo bëgg yëf yi gën a tegu ci yoon mm-hmm. dañoo bëgg mbiru jubbanti ñoom seen bopp ñetti kàddu yooyu ñu jëfandikoo mm-hmm. ngir yàlla bu mu nekk slogan ak ak naxaate bu mu nekk li Abdoulaye Wade wax ay que ku tenir <laughs> promesse yow la engagé. ak ñi ko gëm ñoom la engagé. j'espère qu'on va tourner la page de ces choses là. Mm. Ah, daal laa ci mën a wax. des slogans on en a connu mais gis nañu après ni mu mujjee on espère que jub jubanti jubal. du du mujjee foofu. on espère on prie on croise les doigts. yaakaar ne du ñu jaaraat fi ñu jaaroon am na tamit leneen loo xam ni xew na euh, lu yàgg la. Mm-hmm. mais dafa jugaat ndax li mujjee am surtout muy tong tong foncier. suuf yi nga xam ne dañ koy jël di ko séddoo foofu itam euh, droits humains day ñëw ah parce que chacun d'entre nous a droit à un toit mais fekk dafa ñoo xam ne dañuy jël ay six cent terrain ah ay ay ay centaines d'hectares ah rien que pour ñoom ñu ngi xañ ñeneen ni seen àq ak seen yelleef LSDH certainement am na ci benn lecture sous cet angle mais on est scandalisé xam nga pour ñun c'est vrai que administration bi ci boppam moom la war a defar loolu ñu wax big big bang loolu ñuy wax benn coup de la fourmilière. <laughs> c'est vrai parce que non c'est vrai que y a beaucoup à dire. Mm-hmm. parce que comme li ma la wax rek euh, gestion moo jiitu gestion gouvernance mooy yore tax réew mi am développement. Mm-hmm. ci jikko yi parce que loolu ma gis barki démb Mourkat. gis ko barki démb ci Almadies parce que man maa ngi dëkk Fanok. man depuis quarante ans maa ngi dëkk Fanok. may jaar chaque soir presque ma jaar ci corniche bi dem ba Atepa wala olympique. di gis teg sama bët di gis. construction construction ci kaw kaw kaw domaine maritime. alors que li ñu wax moom mooy il faut cent dix mètres. Mm-hmm. entre la vague la plus haute ak fi mu ak tali fi mu yem. Mm. alors que foofu set est totalement le contraire man damay doog et puis li ma gën a scandalisé sax mooy beneen bi corniche bu ndaw bi soo ñëwee ba ci bisis bi nekk ci corniche bi jëm kër laa yéen dama jàdd ak gauche mooy jëm pour mën a dem eh, méridien président wala bokk club méditerranée foofu sama yoon la. Mm-hmm. dama tiit parce que commencement presque faanoog ko ba ba ngay àgg ba ba ngay àgg ci club méditerranéen de trop seen géej et puis léegi les gens ont construit à un mètre de la route un mètre doo amee jot nga jaar foofu ma lay wax. xam naa un mètre de la route ma ne eh, attendez mais ñu fi ñu tabax oto bu ci def ndànk sax da ngay. ci kër gi la jëm ci kër gi à un mètre. et là ils l'ont fait parce que ma dama naan dem foofu avant. connais ma je suis dans dans les conditions fa nekk depuis 40 ans laa wax mais damay gis loo xam ne dafa nekk maa tey parce que non seulement dafa am autorisation mais y' a pas de contrôle donc. parce y' a une complicité. totale waaye war a contrôler ci bokk donc loolu laa gis ma gis fa ñu def installé même am na sax ay ASECNA ASECNA quelque chose à la fois même si c' est les Nations Unies ils n' pas le droit. Mm-hmm. ci kaw ci kaw à un mètre de la route donc pour man Fatou. état bi surtout le ministère des finances dina war a def réforme profonde am contrôle très rigoureux que ça soit l'armée ou la gendarmerie mais il faut parce que DSCOS mooy gendarmerie. Oui. mais DSCOS ils ont moo tax fu amee loolu quelque part gis tabax géej ba ci goudron bi ah un mètre de goudron un mètre laa wax de waxuma deux mètres. un mètre de goudron ça ça yàlla laisser faire donc état dafa am devoir def réforme forte. en se enlever casser on l'a dit on l'a dit euh, je sais pas quel pays je le Maroc mm le roi je souviens même ils à ont récupéré le littoral récupéré même je, je souviens qu'en France à Paris quand le, on l'appelle le préfet le préfet Haussmann mm qui était bien connu parce que dañu préfet dafa bëgg def ay avenue day taxaw daane nii donc il faut enlever devant lui lépp la ñuy dindi mm. quel que soit le prix donc c'est le prix à payer il faut enlever ce qui n'est pas normal ñëpp ci bokk yem il faut ñu bàyyi masla bi ak di wax ay parce que euh, on dit quelque part les juristes parlaient de oui le droit mais am na fu mu yem droit dafa am fu mu yem parce que le droit def droit mën na ko dindi donc ñun. te sa droit mi ngi yem fi droit loolu laa la wax surtout doon kii dafa am droit parce que il a un titre foncier mais état bi état c'est plus puissant tout le état tey su soxlaa sérieux su titre foncier danañ ne la partout am téyel lii téyel nga téye ñu ne demal fële kii ça c'est le domaine ñoo ko bokk public comme il a bien dit res ko bokk comme da am nga droit parce que yow xëy na sa terrain la yaa am nga titre foncier d'accord voilà la contrepartie pour man si le prix à payer mu mu jar ko nag da koy jar mu joxe l'exemple que dorénavant à partir de maintenant il faut ñu commencer moo tax mu le fait que mu arrêté travaux yi c'est pour voir plus clair il faut nga am justification et même soo ko amee justification amuloo droit tabax fii que la ko autorisé il a tort moom il va être sanctionné mais toi tu vas être sanctionné il faut qu'on aille jusqu'au bout kon li ma la wax sànq ci affaire rapport yi. rapport le même principe mooy sanctionner sans état d'âme su ñu ko defulee rek ils auront échoué dans leur mission. mais seddoo bi am mbuurkat boobu moom c'est extraordinaire. et c'est entre hommes politiques. ça c'est c'est le summum. mooy li ma la wax rek ñi ko doon joxe ñi ko ñi ko doon séddalee ñoom ñoo déjà c'est des fautes. Mm-hmm. su fekkee la loi n'était pas bien faite il la rectifier ñu ko def dañ la war a sanctionner six cent sept cent deux cent loo koy doyee yow sama nekk yow sa kër fu nga fa vingt chambre benn benn chambre ngay fanaan benn lal bu mën a fanaan lal mënoo sax tëdd ci kaw lal bi yëpp benn côté ngay lal donc il faut que les gens soient raisonnables c' est que c' est des moyens parce que terrain yi léegi Dakar le mètre carré il va à un million mm-hmm. corniche bi à un million la ville c' donc si corniche on parle d'un million cinq cent. ah voilà calcule ku mel ne ay cent mètres carrés mooy ñaata. un million c'est pour un petit terrain pàcc xam nga sax kër kër sax cent cinquante mètres carrés la on te laisse avoir cent mètres carrés c'est cent cinquante millions c'est des scandales donc tout ça qu'on doit qu'on revenir en arrière qu'on rappelle les à l'ordre il faut de la rigueur par exemple ni mu na dem ba ci ba ci cappaandaw il est bien placé parce que il est inspecteur des impôts et domaines xam na. li xew ay hectares dafa ëpp hectare hectare c'est autour de cinquante maisons si soixante maisons d'après li may wax ci les techniciens soixante maisons mooy ba un hectare une maison de cent cinquante Dakar moom lañ am. ñu jël ay deux cent hectares ñu jël deux cent hectares. <laughs> mais la question foncière reste une bombe quand même au Sénégal. mais absolument elle est